cey sëñ jili sëñ jili ngor ñaax jël na ko mburoog nambe ngay forcer combat ba mburoog nambe ngor ñaax attention mburoog nambe ngor ñaax arbitre bi sifflé na ñoom ñaar woon na leen ci digg géew bi arbitre bi waat na yéen a ngi Saloum ba léegi final 76 kilos individuel yaa ngi noonu ngor ñaax jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Mbour ak Ndambe El Hadj Ousseynou ñaar ngor ñaax ngi ne tekk waaye fi nekk nii Mbour ak Ndambe dara yàgg fen daa bëgg combat gaaw sama caméraman Zoumel jàpp na ko ngor ñaax jël na ko jël na tànk ba Mbour ak na ko mu bàyyi ko loolooy jargandalu wër ko loolu mooy jargandalu dellu sa place loolu dafa leer jël na tànk ba mu jargandaru dëbb na ko naax plaqué na ko mu bañ génn nañu Mburok Ndambe day jël avertissement Mburok Ndambe day jël avertissement Mburok Ndambe jël na avertissement fi mu ne nii avantage Ngor Niakh Mburok Ndambe Ngor Niakh final 76 kilos ba tey ñu ngi Kaolack génnaguñu ndak génnaguñu Ndangaan génnaguñu Saloum Ngor Ñaax Mburok Nambe attention nee nañu tekk ñoom ñaar fi mu ne nii Mburok Nambe bërewul benn combat bu yàgg kon tey day xaw a am problème. naree yàgg li nga xamante ne mooy Ngor Ñaax ak Mburok Nambe jël na ko Ngor Ñaax jël na ko Mburok Nambe mbot na ko Ngor jël na ko wooy Ngor Ñaax na ko Ngor Ñaax daan na Mburok Nambe arbitre bi sifflé na bàyyante leen nee na Ngor Ñaax daan na ko allo allo 76 kilos jël na ko ci kaw Mburok Ndambe Mburok Nambe ngoor Ñaax jël na ko arbitre bi nee na Ngor Ñaax daan na Mburok Nambe bu moo daan waaw waaw Ngor Ñaax Mburok Nambe Ngor Ñaax jël na ko